bokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp di leen dalal jàmm ci penco gi ak RFM te jii ñu taamoo waxtaanee euh, penc mi societé bi ak euh, divorce maanaam euh, sëy yi nga xamante ni daal dafay faral di jafe ba ak tàggoo di ci am tàggoo googee li waral waxtaan wi mooy lim bi mu nga xaw a yéeme ndax sànq rek ci misaal ñu ngi xool ci wàllu xibaar ndakaaru kese atum 2021 junni ak juróomi téeméeri divorce ndakaaru kese Euh, loolu lu yéeme la lan moo koy faral di waral lan jafe-jafe bi dëgg wala jafe yi euh, au pluriel euh, moo waral RFM docteur Abdou Sanogo dinañ sociologue la moom ci kanam tuuti mu du gan ak réalisation bi ñu kon ak docteur euh, Sanogo euh, mu ngi ci téléphone bi ñu ngi lay ziar bu baax docteur. maa ngi ziar bu baax El Hadj Assane. gërëm aussi sa ak sa auditrice. merci jërëjëfati ci ànd beeg RFM ñu ngi waxtaanee wàllu divorce yi euh, taux bi moo yéeme lool ci ci gis-gis ñu war ko jàng tey ci penc mi d'abord ban jàngat nga ci def yow. waaw bon xanaa man perso ñun personnellement man mi nga xam ne parce que j'ai yu bëri si loolu laa ko def man bettu ma mm-hmm. personnellement. Mm-hmm. Euh, parce que même si je suis ci université je suñu expliquer la sociologie exemple bi ma di exemple mariage divorce. Mm-hmm. Madame, euh, sens commun moi li nga je ne la voilà le collectif. loolu mooy sens commun. Mm. bukki xam nga bukki daf ni li ñëpp wax mooy dëgg. mooy dëgg. Mm. waaw léegi nag euh, sens commun boobu li ñëpp wax dafa am juum bu mu juum. Mm. ci ni mu jàppee bi ci sëy. te loo xam ne dafa wuute ak ñun ñi nga xam ne nii bon suñu xam dafa màcc ci jàngale lan mooy mbiru euh, phénomène askan wi ñun niñ ko téye. te loolu boo ko ratee rek bon amaana soo deful na ko aussi pour nga dugg ci sëy bi ba téye ko day day jafe. bi ci njëkk mooy ñun dañuy wax ne sens commun dafa jàngal ne la. mariage affaire bonheur la manam affaire mbégte d'ailleurs même so takkee jabar dañ lay wax heureux ménage mhm. un ménage ne peut jamais être heureux mhm. c'est pas possible parce que ñun dañuy wax en vérité sens commun bobu soko jëlé nga tek ko ci tiroir yi lii deug deug deug deug réalité bi mooy mhm. mariage ñun dañ koy tuddee prison sociale moy kasso bo xamni ni dafa nek peut-être kasso bu askan wi deug mais bu ko jappé kasso au sens d'ailleurs soo demee ci tradition sooy dem ñoom ñi nga xam ne nii ñoom wax dëgg yàlla ñoo ñu gën a ëpp sagesse lu ñu lay wax. Mm-hmm. du ñu la wax mukk heure de dañu lay wax na nga dem te mm-hmm. waaw xam nga fi ngay muñ kaso boo fa bu bu dee dañ la ci waajal. Mm-hmm. soo fa demee dugg fa doo am benn jafe-jafe. parce fekkoon na nga préparé. wu fa léegi nag. Euh, malheureusement dañu am problème perception boobu. parce que jàpp nañu mariage moom bànneex rek a fa am. beneen bi ñu am lii lal mariage ñu koy sentiment. Mhm. soo duggoon ci askan wi nga def sondal nga laaj leen ne leen lan mooy sentiment ak fu ñu koy yëgee ak mbëggeel fu ñu koy yëgee soo deful nag amaana genn wàll yëpp dañ lay wax ni sunu xol lañ koy yëgee. Mhm. waaw léegi nag njuumte bu weesuwul nga jàpp ni mbëggeel ci mbiru xol la. xam nga mhm. dafa am xeememteef am mbëggeel. mbëggeel ru moo koy def ruu. dañuy wax le sentiment c'est une affection de l'âme par les sens. te ruu xam nga du dee ruu day yéeg dem ci sunu borom yaram bi mooy dee. ba tax na bu fekkee ni sa ruu dafa bëgg nit. Mhm. ak lu munti am da nga fay toog. ak lu munti am danga fay toog. Mhm. mais bu dee nag xeymam teef la muy wax désir. ñu koy tuddee attraction affective visant une relation de possession maanaam yow koo xam ni da ko koo gis rek nga ni kii neex na ma de. Mhm. yow defoo lu dul bëgg koo am sa wet. ba nga ko amee sa wet nag la neexaay bi dem yoonam. loolu moo ñu dal te yëguñu ko. dëgg la.

ci nga xeymam dëgg ci nga bëgg dëgg d'ailleurs exemple bi may jox samay étudiant mooy sunu borom gisuñu ko mhm. mais jaral nañoo dee Seydina Mohamed gisuñu ko mhm. mais jaral nañoo loolu mooy sentiment et puis c'est plus profond c'est plus profond beneen mhm. bi ma leen di wax ni surtout Freud moo ko indi mooy euh, relation bi yaay di am ak doom xam nga yaay doo mm. ko weccoo ci mm. dafa feebar ah dafa mag dafa màgget yaay rek lay doon waa léegi Fred nag dafay expliquer ne il faut que bu ñu buggee ñun suñu sentiment di ñëw mm. ñu delloo suñu cofeel comme cofeel bi ñu am ci suñu yaay mm. loolu day tax nag mais ce qui est presque impossible parce que ak yaay dafa am ben link bu alors que da ngeen di dox di <laughs> indi mm. ñi chance. Mm-hmm. ba transférer sentiment ñu am mm-hmm. mais bien entendu lu koku def. ñeneen ñi ñoy gis da fayda yow yow ki ya xale bu jigéen bi bëgg jëkkëram comme ni mu bëggee yaayam lu mu def amul takk deuxième femme amul yow gisoo loolu xam nga loo gis mhm. kii yàlla moo ñu boole bëgg naa ko bëggeel boo xam ni nii du deñ même suñ demee yow mal xiyaam sax du deñ ak lu mu mënti def aussi dinaa toog mais nag mhm. préparation bu am na nag ñu ko yàlla may d'ailleurs mhm. l'exemple que je donne ñun sunu maam yi treize ans la ñu leen di maye wala quatorze ans. Mhm. xam nga kañ la gis seen jëkkër. Mhm. dañuy dem sëy seen kër goro ba ñu muur leen ba ñu togg añ ñu fekk seen jëkkër ci tool bi ñu muur leen ñu ne la këlee toog yor illeer bi kooku moom moom lañ la may biit. Mhm. te dañ fay toog duñu fa jóge benn yotaa d'ailleurs loolu moom mooy waral ñi réussir Sénégal yëpp. boo ko xoolee ba ci biir. mais seen yaay dañoo sëy te yàlla. dégg la léegi contexte yi euh, docteur dafa changé àddina changé. bu baax loolu mooy problème bi il faut faire avec la la triste réalité. nees mën a def ba dimbali euh, sëy yi euh, couple yi ñu ñu ñu ñu ñu gën a góorgóorlu gën a yàgg lëf sax parce que. am na lu xel mënut a nangu ñu euh, tay jii nga def mariage boo xamante ni bopp koñ ba bopp koñ ñëpp yëg ko ñeenti weer ginnaaw si ñu ne tas na. yow yaa ñeenti weer man souvent damay tooñ sama étudiant yi ne naan on se marie en janvier on divorce en février. et loolu c'est visible peut-être que ñi ñi nga xam ne mais ñun c'est visible chez nous ah. mais loolu. Je je veux pas être pessimiste mais dina jafé xam nga lu tax. Mm-hmm. dafa am résidence mom moo koy tënk te ñun légui dañoo dem ci ce qu'on appelle la nucléarisation de la famille. Mm-hmm. en vérité. Oui. Ni c'est ci appartement la ñi sey wala studio. Mm-hmm. amul ben ressort ak amortisseur bo xamni ni parce que c'est. Pour la wax ni ñaar nit rek mën nañ ko doxal. ci début bi da fay nax. deug en Afrique c'est pas deux individus qui se marient c'est deux familles qui s'épousent. famille ñoy nekk si ginnaaw dem d'ailleurs dañ leen demal waxtaan ak sama famille. Mhm. waaw mais léegi benn appartement nga bàyyi woon nit ak jabaram rek suñu amee jafe-jafe kuy atte. Mhm. suñu tongo kan moo leen di jubóole. Mhm. loolu dafay interroger beneen famille la beneen problématique la faillite de la notion de la famille. famille léegi Sénégal ni ñu ko gisee woon mu nekk mbokk ñuy bokk lépp di partager lépp léegi amatul parce que gis nga bàjjan dafa baax ci kër nijaay dafa baax ci kër maam su fi nekkee dafa baax ci kër mais ñun dañoo tubaabiser suñu bopp ba et d'ailleurs tubaab bi tubaab bi gis nga mariage amu fa benn sacralité bi mm. divorce moom waxi noppi mm. d'ailleurs ñoom ils sont même pax pax maanaam ay contrat la ñuy signé seen biir mm. waaw comme léegi dañoo roy dàq nag ba di xool si ñoom ñu jéggaani bàyyi ñoom suñuy croyance mm-hmm. donc foncièrement mariage moom pour mu amati fi avenir fii il faudrait qu'on procède à redresser beaucoup de choses pour mmh. que nous a réussir. mais mais mais il faudra ñu xar ci sunu tànk tubéy encourager le mariage surtout docteur diganté góor ak jigéen. jamono yu euh, ñi nga xamante ñom ñoom seen euh, culture dara baaxu ca. ca ñu kenn bax ci adina dem nañ ba sax légui mariage gor ak gor lañuy ñuy daganal. xam nga donc il faut encourager ñun suñu cosaan ak suñu diiné limu ñu may moy gor sey ak jigéen. voilà xam nga nak posé nga nag benn conséquence gis nga divorce ak mariage yi di tas ni ñun ñëpp ñu toog ci di ci seetaan. Mhm. suñ ko continuer. c' est promouvoir implicitement aussi l'homosexualité mhm. xam nga mariage mooy consacrer les rapports différenciés ci ci sexe yi maanaam góor ak jigéen. Mhm. waaw léegi loolu xam nga loolu moom mooy moom mooy ñoŋal société boo xam ne day tënku si moral ak di tënku si valeur. mais malheureusement soo xoolee bu baax léegi am doom bu jigéen léegi jarul tiit am doom bu góor sax moo jar a tiit mhm. parce que ñun ñu nekk ci domaine bi nga yëg ko ak nga ñàkk ko bañ a yëg nga xam ni ñu ci ONG di def yenn compte mais da ngay waaru mhm. ci xale yu ndaw yi ngay gis ñuy nekk en couple avec yeneen xale yu góor yu ndaw parce que léegi véritablement dara encouragé tu leen aussi à ce que góor di topp góor et loolu ñun ñëpp suñu responsabilité la parce que mhm. damay fàttali souvent nit ñi ne les gens oublient que mariage foncièrement la raison nekul sax pour am doom c'est pour mm-hmm. légitimer les rapports d'intimité mm-hmm. maanaam daganal diggante góor ak jigéen mm-hmm. c'est-à-dire da ngay da ngay dégg ñu ne diggante bi daganal nañ ko mais léegi su commencé nekk fayit nii mais dinañ dem ba mel ni en Europe également xale bu góor bu d'ailleurs léegi da ngay discuter ak nit même temps ces projets il te parle de voiture il te parle de maison mais waxu la benn yoon waxu jabar léegi-léegi sax ñenn ñi dañuy wut ay comment ça s'appelle encore dañuy dañuy wut ay ay ay écran mm. dem takki jabar fii mm-hmm. tuuti pour ñu xam ni waaw kii kat mm-hmm. euh, bëgg après benn instant mu bàyyi ko après mu mm. dem ci compagnie léegi nag mm-hmm. taxawaay bi foog naa ne taxawaay bi ministère de la famille dañuy wax ministère de la famille la wax ñaar yi am nañ ci wàll kenn ki mooy ministère de la famille kenn ki mooy ministère de l'éducation cours mm-hmm. moral et instruction civique yi ñu doon dugal ñun bi ñu nekkee xale ñu andi ko. foog ñu mais waaw mais ñu teg aussi ci bopp bi problématique c'est mm. quoi la famille. c'est quoi l'importance des rapports différenciés. Mm. lan mooy importance góor wala war a takk pourquoi il ne faut pas aussi faire la promotion peut-être si vous voulez des rapports. Mm. Euh, euh, comment s'appelle encore uninominaux c'est-à-dire ben rapport boo xam ne nii góor ak góor moo koy nekk wala jigéen ak jigéen mm-hmm. parce que ñaari sens mais beneen bi ci des le ministère de la famille budget yi ñu am yëpp lan moo caravane de sensibilisation de mmh. campagne mmh. wax ci problématique bi dem ci école yi mosquée mmh. même si xutba yi ñu former imam même si église nous revenir encore sur la sacralité du mariage parce que le point de départ d'une société moi, diggante góor ak jigéen bu ñu lewal ak bu ñu daganal mais lii su continuer d'ailleurs dëgg la am na peuple bu mag bu ñu alak bu suñ mm-hmm. borom alak ci la mm-hmm. ko alagee te rendre si compte mais ñun ñëpp suñuy famille mën na fa am te kenn du ko mun na am ci famille ñoo xam ne sax kenn foogee woo. dëgg la te kenn du xëy. mais ci xeex bi docteur il faut ñu xeexaale ak matérialisme maanaam am-am bi fi ñu ko yóbbu Sénégal ak. Uh-huh. jumtukaay bi dañ ko gën a jox solo valeur nit ki ci boppam xam nga ci nag ñëpp ci am wàll. parce que fii ku la ku la gën a mun a euh, sikk matérialisme moo la gën a bëgg àddina. Euh, du ñu joxe de bon exemple aux jeunes. waaw ah, voilà Assane xam nga loolu aussi dama ci xaw a defaat. Ah. xaw seetlu rek ci ci xam mm-hmm. nga président wax na ko démb je crois romb naa ko si benn élément mu mu expliqué ko. Mm-hmm. nit ñi dañuy nekk fii rek di wax di di mais gis nga loolu. Mm-hmm. c'est c'est impératif gis nga affaire numérique bii nii suñ ci taxawul. dinañu dem boobu même ñi koy def mu lakk seen biir. mais di di ëpp loxo dina ëpp loxo waaw parce que parce que quand même chaque instant ñu ne la diw mais pourquoi ñuy publicité ay dotu 3 millions 4 millions 5 millions vraiment loolu exemple à montrer quand même mais c'est ça c'est pas un exemple à montrer ñun suñu yoon nekkul si kan moo joxe 4 millions wala 5 millions ngistal kese la ñun suñu problème nekkul si kan moo takk jiw ak d'ailleurs mhm. foofu dañuy wax ni joxe na 5 millions mais Ben, instant nga ñëwaat si réseau finalement tas na tas na te ñun ñun il faut que aussi imam yi di revenir parce que ñoom tamit diine ji am nañ ci part de responsabilité. Mhm. soo jëblee tey ñun jullit yi lan la ñu sunu sunu sunu sunu référence sunu yeneen wax sëy bi la gën a néew loo joxe moo la gën a barkeel. moo kon moom kon xamoon na ni jamono dina dox ba ñëw fii. Mhm. mais ay kër jullit léeg-léeg sax nga nekk kilifa nga maye sa doom ñu ne jox leen ko trois millions quatre millions mais yow miy waajur bi. ne mhm. ko exiger naa guro ak ñeent ak trans ak li ñuy joxe si jàkka yi soo amee looy joxe bàyyi ba sa jabar ñëw sa kër yéen ñaar rek yéen ko si mais léeg-léeg waajur ñoo gën a bëgg xaalis ah. mhm. mhm. mhm. ñun aussi lan moo ñu teree en tant que góor suñu amee suñu situation war a takk soxna ñu dem xooli ku ñu yar xool koo xam ne nii buggul ngistal mais ñun ñëpp affaire rafet la xol ci femmes célèbres yi théâtre kat yi. Mhm. téléfilm yi actrice yi miss yi. Mhm. ñoo ñëpp baax nañ. Mhm. loolu kenn waxul kenn wax kenn wu ko. mais aussi yow mëno tak ko xam dafa am célébrité mais foncièrement suñuy wax ay waxam il faut il faut reconnaître que vidéo vidéo yi day génn journaliste yi ñëw animateur yi ñëw yow ya ko choisir donc légui nak aspect boobu nga xam ne dañ fa commencé nekk muy wax nga ko léegi muy aspect wu véritablement affaire accumulation mm-hmm. affaire ngiste affaire xaalis affaire loolu dafa dugg ci mariage ba yàq ko te mariage gis nga bu bu ko loolu lalee rek mm-hmm. très bien maintenant ak facilité bi nit ñi di joxe seen kàddu après wor ko wor seen seen bopp sax la ñuy wor parce que mm-hmm. boo melee nen ni après yow lañ dul considéré ti muy ñaari wàll yëpp nag euh, njaboot gi ñaan ak njaboot gi maye euh, ak it les principaux concernés parce que mbir bo ci duggé joxé sa kàddu war nga mëna nek euh, un temps soit peu euh gor sax ci ci ben point bu ndaw bi mais mëno rek euh, def de l'escroquerie duggu ci nit parce que amna tar mu dem ba euh, màgget wala mel nen ni nga né wala dama ko fi naan ñëkk wuti lenen koku c'est de l'escroquerie. absolument yow yaa ngi escroquerie mais c'est de l'hypocrisie. -hmm. té encore une fois ñun ñi nga xamni fo ñu wax ñu né wa mom kay ndeysaan ci mosquée bi ci jàkk -hmm. donc d'ailleurs principe yi ñu njëkk a faussé mooy si ñun sunu en tout cas ñun. catholique yi moom dañ koy def mais ñun si ñun hmm. sunu suñu diine l'islam hmm. dañuy fàttee woo ku jigéen ki mu toog woo ku góor ki mu toog ci hmm. mosquée bi ñu jox leen ay dénkaane imam bi mais bu mu ñëw rek maye affaire yi taf taf ñu joxe guro yi ñu dem na nañ exiger Mm-hmm. nit ñi xam importance ñu indil ko euh, aji sëy yi. mais c'est saa mais koo xamante ne yow kay kay marié ma nga dem salon ba deux heures du matin doo mën a teg loxo ci moom ku góor ka yow yow mënoo ko sax gis. góor ka cosaan danaan la léeg sax doo dem ca jàkka ja. waaw ah, mais tu vois voilà donc donc tu vois tu tu vois maintenant léegi ngeen toog ñu expliquer ñu ne la non bon véritablement yéen ñaar kat. marié ngeen euh, li ñuy njëkk laaj mooy affaire xaw ma lan ji jox leen. <laughs> ñu jox leen loolu daal la ñuy liggéey. <laughs> bu ma ko sañoon dama naan un mariage euh, presque à leur insu. <laughs> mais c'est ça c'est presque léegi mais yow soo xamul principe bu mariage. Euh. sa diine bi nga tënku. Mhm. yow xoolal bu baax. catholique bu demee bañ ne ko mu ci kanamu prêtre bi pour le meilleur et pour le pire day rek mais amatul tàggoo. Mhm. parce que day dégg d'ailleurs ñoom dafa am prêtre boo xam ne daf lay accompagner six mois avant mariage di leen hmm. wax attention balaa hmm. ngeen di ñëw kanam église xam leen lii moo leen di xaar lii ak lii hmm. su ngeen fa xasee ba ñëw bu leen dellu ginnaaw. suñ demee ba pare ñu ñëw. fii nag am na ñoo xam ne xamuñu sax mosquée bi ñu leen may. dëgg la malheureusement xamuñu nu mu tudd waaw mais léegi nag. franchement mariage du ay affaire wu. oui oui ñu gën a voilà mais mais ni nga ko waxee rek du yomb mais ñu gën a wëlbati mbir yi laata muy jur leneen. c'est ça mooy li ngeen def nii lenn la ci. li ngeen ah. def nii lu lu am solo la ci. peut-être que et puis surtout ngeen ñëpp di ko dégg. Ah. mais xam nga mais pour man. Ah. ñi war a gën a ñu ñu war a waxal nag mooy parents yi. Ah, ah. ñi may seen doom ñoom bis bu leeree seen bopp. Mm-hmm. su boobaa yàlla mën na ci def yàlla mën na ko barkeel jërëjëf mais amul benn mariage bu neex muñ rek la quoi dëgg la voilà merci docteur Sanogo ni nga ko waxee jamono ci boppam moo neexatul sax donc euh, loo dugg ca pare woo caa muñ ba ci liggéeykaay <laughs> borom kër dina muñ euh, ci bërëbu liggéeykaayam loo xamante ni njaboot rek moo koy waral du ñàkk faydaam du dara patron bu foog ni nag ah, romb Ablaye Diop gëdd ko foog ni ak ñàkk faydaam la déedéet moom dafa am jomuk yóbbu dara ca këram rek waaye bu amoon euh, pexe euh, du ko muñ docteur Massamba Gueye docteur beneen ci jokkoo bi doom bàyyi maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi ziar doom a jërëjëf jërëjëf am mbégte ànd ak ci waxtaan wi rek euh, jaaxal ñëpp euh, parce que aussi mbir moom bu ñu ca waxul lu may di dajale problème yi bu yàggee mun na jur leneen ak leneen lees mun wax ci rajo ndax mariage moom c'est sacré il faut que ñu ñu maintenir ko ci penc quand même n'est-ce pas. waaw dafa naa ne dañ ñun moom suñu réew mi bis bu fi sëy jógee. ak hmm. sëy yu yàgg sëy hmm. yu dul tas. Hmm. bis bu fi jógee musiba am ndax mooy ndorteelu kenn ku ne fu la neex nga dem lu la neex nga def ku la neex nga am. Mm-hmm. te sëy dafa nekk loo xam ne dafay ñàkk aw askan. Mm-hmm. ndax mooy mooy ëtt bu njëkk bi nga xam ne fa la nit di ganeesee adduna dëgg la seen na nga xam ne noonu la ko aada bëggee noonu la ko diina bëggee. Mm-hmm. muy it euh, barab boo xam ne fa la nit di euh, jokkoo ci njabootam jokk nit ci njabootam. ndax xam nga bu sëy amatul. Mm-hmm. doom du am ci ñun ni ñu ko bëggee. Mm-hmm. kon euh, sant dana réer tuur dana des. Mm-hmm. waaye mu it nag euh, responsabilité boo xam ne bala cee nit di dugg dañ ko war a waajal. bala cee bala cee nit di dugg muy góor muy jigéen. war naa xam ne euh, du rek bànneexu boppam moo ko ci war a dugal waaye Euh, lu mu lu mu lu mu signé la contrat bu mu signé ak boppam signé ko ak nawleem. Mhm. signé ko ak mbokki boppam mbokki nawleem signé ko ak askanam. dëgg la kon nag loolu moom du vraiment loo xam ne dañ koy jël à la légère. maanaam mhm. lu ñuy foyee. Mhm. waaw ba tax nag. allez-y. waaw ma ne ba tax nag ñu war a xam ne li tax ñu tuddee ko néegu sëy. tuddee ko sëy. di ko waajal ba nga xam ne duñ xëy rek dem ca. bala cee nit ñi dugg war nañ war nañ leen tegal ëtt bu yaatu ñu ñu xam ko bu baax baax baax dëgg la maintenant daf di mbir boo xam ne ñaar ñu ko seq ñëpp war a muñ fii tu as l'impression ko Sénégal ku jigéen ki la ñuy muñ loo ah nga gis de des hommes très violents ak yeneen ak yeneen koo xamante ni ah ku la ñaan baat nga ne non jël na paaka rey ko waaw xam nga li ko indi mooy euh, kenn ku nekk ñun dañ la daan wax muñal hmm. maanaam ku góor ki ak ku jigéen ki ñu dem ba ci biir nag ñu jàpp ne ku jigéen ki rek ko war a muñ mm. déedéet ku góor ki nga xam ne dafa daan xëy suba fu ko neex mu dem mm. bu ko neexee mu tëdd bu ko neexee mu tijji yorub néegam di ko tëj ak a xëy suba war koo bokk ak nit kooko war caa am lu muy def ak war naa xam ne kon am na lu mu war a muñ mm-hmm. ki nga xam ne nag moom mooy jigéen position dafay xaw a gën a doy waat suñ société bi mm-hmm. ndax dañ koy muur génnee ko kër ndeyam génnee ko kër baayam yóbbu ko kër nit waaye ki nga xam ne nag El Hadj Assane bañ koy indi dañ koo muur guddi jox la ko. Hmm. lu ngeen am am jafe-jafe am na foo xam ne waru fa hmm. ak ah, moo tax nag ki ngay takk na fekk mu xam ne yow am nga kilifa jigéen képp ku koy wut si ay waajuram nañ lijjanti ba xam kooka ndax am na kilifa goo xam ne mën na ci moom dara. Hmm. ndax bu fekkente ne yow mii takk amoo kilifa. famille ba nga bokk wegoo fa kenn amoo nijaay amoo mag yoo xam ne mënal na la dara. Mhm. jigéen nu la jox bu ëllëgee ki si biir bu saytaanu ñëwee seen diggante mhm. dana métti. kon nag du ku jigéen ki rek ko war a muñ. Mhm. ku góor ki moom moo mooy mooy premier ki ki war a am xol bu yaatu. mais xëy na balaa ngay dugg sax ñu ñu ñu ñu ñu xool ci li ñuy dugg tamit de part et bañ a jiital am-am rek waa ji ñëw na gaare na oto nangam nangam na ku ne xool ca la ngay dugg. Alaaji Asan gëstootuñu jikko. gëstootuñu juddu gëstootuñu jaar jaar. li ñuy gëstu li ñu njëkk a gëstu mooy ñaata la ko may. Mm-hmm. xoolatun bu njëkk ba danga nga daan dégg ñu ne doom ja ndey ja. bu ne diw mooy takk ñu yónnee am mag mu gëstu xam kooka kana. waaye léegi xale bu jigéen bi ci boppam mooy indi mooy indi ki koy takk. Mm-hmm. ñi ko koy may ay nijaayam ak i baayam ñu ci bari ca bis ba ca bisu takk ga lañuy gis waa mm-hmm. te waa da daan dem nuyoo dugg ci njaboot gi jaxasoo ñoom te daaw sa mën naa bañ a gis sa xale bu jigéen bi waaye danañ càmbar jikkoom ba xam ba xam kii. ku responsable la kii ku nangoo liggéey la kii ku nangoo joxe. Hmm. ki nangoo liggéey kenn du ko may jabar ndax loola da ko war. Hmm. waaye ki nangoo joxe man a yaa te nangoo yor kër kooka la ñuy jox. Hmm. léegi nag dañoo dañoo war a bàyyi tase ci bànneex El Hadj Assane. Euh, tase ci restaurant génn ci restaurant waxtaan ci baal. génn tase ci bë bëccëg bis bu ngeen wéetee ci kër gi. Mhm. kenn ku ne gis sa jikkoy morom dëgg kër gi dana métti. dëgg la dëgg la maintenant euh, est-ce que société bi parce souvent ci jàngat yi dafay del si souvent ñu ne suñu société suñu société ndax dana war a continuer di bàyyi li gàkk ci suñu société ci wàllu doxalin les taax muy continuer wala dañoo war a tàggoog moom nag parce que àddina nag day dox les gens ont ont peur de la rupture quelque part. waaw man de d'accord naa ne euh, askan wu ne. Mhm. ñun li ñu gëstu ñun. mooy aada ak cosaan amu ci dara lu sax dakk mm-hmm. day tuxu day tukki day ànd ak jamono. Mm-hmm. dañ la koy wax bu baax a baax convention yi nga xam ne sax moom lañ signé. dañu yor aada ak cosaan muy convention 2003 bu UNESCO. Mm-hmm. daf lay wax ci ubbite ga ne la. amul lenn te gëstukat di àdduna fépp d'accord na nañ ci amul lenn luy aada loo xam ne na ko maam sose woon moom lay doxee ba tey jii. lu ci ne danga koy méngale ak jamono. xam nga tey euh, bu fekkente ne da ngay sëy fu mel ne Dakar xale bu jigéen bi am kër gu war a dem kooka mënut a bokk ak ka nga xam ne ma ngay sëy ci kër gu yaatu ci dëkku àll boo xam ne njaboot gépp bokk dem ëtt. Mhm. kon lépp lu ci ne dañoo war a xool la ca la ca ànd ak jamono ndax am na lu baaxoon daaw. Mhm. ren du baax ndax àndut teg jamonoy ren. Mhm. loolu moo tax nag ci biir néegu sëy yi. ni ni ñu daan jëlee nit mu am njëkke. njëkke la nekk ak moom ci biir kër gi du ko yar. bu fekkente ne day dem nan ba loolu ñu tuddee njëkke ki kin koy jox xamu ko. ki nga xam ne moom mooy njëkkali xamu ko. jar na nag ñu toog ñu xalaataat bu baax ndax weer nay wéy bu fekkente ni day indi jafe-jafe ci ki ëpp ki jëkkëram ëppale. Mhm. di jënd ay mbubb ñu ne moo baax. ki jëkkëram amut moom amul ñu ne moo bon kon ànd naa ak yow ci loolu. li gën ci li mu moom nan ko mm. téye. Mm. waaye lu ci àndut na jamono nan ko wàcc ndax day indi rek sit na ci biir kër. docteur Sanogo mu ngi koy junj sànq euh, ci wàllu état ni mu ci war a taxawee kenn waru ko caa jiitu parce que xam nga état doo gis ay mbir rek wala ñuy tag nga ne nga jappé ko lu sew sewaan ay sey yi bari nay tas wala nangam drogue bi lolou lepp ci sa kaw lay xep ndax ya yaa njaboote euh ministère de la famille mu ngi fi yenen ministère yi docteur Massamba est-ce que vraiment à l'avenir mënuñ sax di di di couper bu doon yéré la bu ñuy dagg euh, suñu ministère yi ñukoy koy dagg par rapport ak sunuy jëm bala mbubb yi diñu ëpp y a des ministères xeyna nga xam dañ ko rek abani ci tubaab yeeg et cetera wala demb mais ñun yi ñu soxla la wara xol di def ay ministère yu deppok suñu dund ak fan ci toll ak lan fa nu bëgg a jëm euh, je parle d'orientation. waaw mbub moomu nag li nga xam ne moo koy indi mooy kuréel yi nga xam ne moom lañ samp ci réew mi ngir nguur gi mën a dox ñoom war a doxee benn bu ci ne danoo war a laaj ana lan mooy njariñam ak lan moo ci suñ soxla. Mhm. bu njëkk bi mooy boo jëlee euh, euh, euh, kuréel gi nga xam ne moom lañ dénk njaboot boo xoolee pàcc pàcc yay ne ca biir pàcc bi nga xam ne moo war a téye njaboot ji. Mhm. moom lan ko war a dénk ci liggéey mooy nan la ñuy waajalee néegu sëy yi nekk solo ca la muy def. Mhm. waaye su fekkente ne dañuy copier gouvernement yi am feneen ñëw indi ko rek ngir nuroog ñoom loola moom du dox. Mhm. tey jii jàpp naa ne ministère bii nu dénk euh, euh, njaboot gi ki ko jiite te am wërsëgu moom soog faa toog. lam war a njëkk a lijjanti mooy moom ak ministère de l' éducation nationale. bi nga xam ne moo yor yar gi. Mhm. nan la ñuy fexe ba am ci daara yi programme mu néegu sëy ndax gone yi. Mhm. Mhm. dan daan dan daan am laajtantoo. ca laajtantoo ba ñu xam lan mooy jëkkër lan mooy jabar lan mooy kër lan ma koy muñe léegi nag loolu amatul. loolu amatul yaru cosaan amatul. nan lañuy ñuy dugalee loolu ci programme scolaire bi. bañ a nag dugal li tubaab bi bëgg moom ci diggante góor ak jigéen. Mhm, mhm. waaye dugal li nga xam ne mooy tax. non li loolu la wax nga ko rek ñun fa nu bëgg dem rek ku nekk fa nga bëgg a yem tubaab bi moom. am na fu lay yor tableau de booram xam fa mu bëgg dem yow nag boo sàgganee ba mu yóbbaale la ci wotoom ca xamoo fu mu jëm sa affaire la. <laughs> loolu moom ànd naa ci ak yow ne man tubaab bi moo tax bu ma déggee nit naan tubaab bi tubaab bi. defuñu nu dara defuñu nu dara ñun ñoo war a jël suñu yoonu bopp. waaw léegi nag man gëm naa ne programme boobu war nañ ko am mhm. Euh, am na matière bu am doole boo xam ne mi ngi ci ministère ci éducation nationale matière boobu dañ ko war a xoolaat càmbaraat ko. Mhm. muy éducation familiale. oui éducation à la vie familiale gis nga éducation boobu. Mhm. matière boobu rek. Mhm. bu nu ko jëloon tey jël ñi nga xam ne ñoo xam ne ko néegu tey cosaan nu ñu koy téye. yóbbu leen fa ñuy formé ñooñu. ñu jox leen li nga xam ne mooy mooy mbóodi. ñoom danañ mën a dimbale gone yi ba ñuy waxtaanee loolu ci biir exposé yi. di ko waxtaanee di leen waajal ndax amuñu feneen fu ñu leen mën a waajalee. Mhm. ndax xale yi léegi ñetti ak la ñuy génn kër yi école bi yor leen. dëgg la dëgg bu fekkente ne nag ministère yi ñu ngi wéy rek ci programme yi tubaab yi indi. Mhm. tubaab yi ñoom seen day liggéey na ndax lañu bëgg dana am. dëgg la waaye defe naa ne euh, tas yu bëri yi moom ñàkk waaj la. Mhm. sëyu bànneex nag di sëy ngir wut bànneex waaye sëyoo ngir samp kër sëyoo ngir yokk askan wi ay nit yu baax. loola dana indi doo yàgg ci sëy Euh, du woon sujet tey bi sax mais violence bi <laughs> xam naa tey moom jigéen ñi lay lay layal ñoom lay solal mbubu avocat euh, parce que dañuy nemmeeku souvent vraiment euh, ñu baal moo quoi du ñëpp nag ndax bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër la wala wax mais am na ñoo xam ne ñuy doxalee jigéen dañuy dem ba nga naan lii est-ce que sax c'est mbaa du c'est culturel est-ce que ñun noonu ba war a mën a jàppee jigéen fii Sénégal. Ah, déedéet déedéet xam nga dañ la daan wax ne la ku fase sab aawo. Mhm. ku sunu aada ak suñ cosaan ñu ngi koy tooñ Alaaji Asan nañ bàyyi jàmbur. nañu bàyyi jàmbur lii nuy wax ne moo ko wax waxu ko. coo ci ma mm. def na jigéen soppaltu bul wóolu ñun ñu def ko jabar mm. soppaltu bul wóolu. kon kon du du diine du cosaan. du diine du cosaan <coughs> coobara la ak def lu la neex. Mm-hmm. askan woo xam ne dan na la ku baax sa ndey a tax nga baax. Mm-hmm. askan woo xam ne kilifa diine gun fi tagg gune ne ña ngi koy mm. taggee nday ja kon jox nañ solo jigéen askan woowa jox na cër jigéen jox nañ cër jigéen alaaji asan mm-hmm. kuy def sa lu bon defal sa lu bon mm-hmm. ku wegut sa jigéen bu ko wekk ku wegut sa jabar bu ko wekk ah. waaye bu ko jiiñ cosaan bu ko jiiñ diine dëgg la sant ñu la loola jërëjëf macha allah docteur masamba maa ngi lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf jërëjëf docteur Massamba Gueye jërëjëf docteur euh, Abdou Khader Sanogo jërë ngeen jëf yéen ñu doon teewlu waxtaan wi ak RFM ñu ziar bu baax Pape Diak Abdoulaye Diop euh, ak euh, équipe bi ci kër gi nga xam bëgguma wax seen tur <laughs> dañu am benn association ragal sa jabar Abdoulaye Dere ko jiite <laughs> jaa ngeen jëf mbokk yi. jërëjëf Ablaye Diop nee na dañu fàtte woon ay membre association bi Mara Dieng euh, ak kan nga ni borom imprimerie bi 88 628 14 14 RFM mbokk yi ñuy waxtaanee rek euh, penc mi waaw nees man a def ba gën a xajonte parce que lii lépp boo gisee ñu koy waxtaanee ñàkk moonu euh, dafa am loo xam dafa àndul ak moom waaw comme yàlla def na économie bi xaw a demee boor ci àddina ñun ñoo ngi liggéey guddeeg bëccëg macha allah ngir mëna a jubbanti yi waaye nañ ci bolé ak jàmmoo ah, ak mottalante ak xajonte c'est très important waaye loolu day fekk aussi xol yi euh, gën a yaatu nag xataay bi ñu wàññi ko ku mu laaj ñu def euh, travaux d'extension sa biir xol <laughs> waroon nañu créer benn ministère d'extension des cœurs parce que nit ñi aussi xajonte wax dëgg yàlla parce que àddina yàggul amul solo 88 628 14 14 asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Omar maa ngi ziar Seydina Omar. El Hadj maa ngi lay ziar di la ñaanal yàlla saa su ne yow daal ba man lay doomu fuladu yi ak fuladu yëpp ñu ngi lay ñaanal suba su ne. alhamdulilah parce que da ngay ñëw da ngay ñëw si benn thème boo xam ne mooy lëj askan wi. jërëjëf wax dëgg yàlla que sa invité bi. Mhm. wax dëgg yàlla wax na wax bu am solo xaw ma mhm. ba am ñu ñi déglu nañ ko ak xel. Mhm. man de déglu naa ko très bien ak xel. Uh-huh. wax dëgg yàlla affaire bi daal dafa yaatu nit ñi léegi xoolatuñu eh, eh, kii diw. nan la mel. léegi mm. diw lu muy li nga njëkk a laaj d'abord ñaat la ko may. Mm-hmm. dëgg la vraiment Alaaji Assane nan la kii tey naa mm. la nit yëkkati juróomi million jokkoo bi benn doomu aadama ñu ne lii may bu njëkk la wala waru gar la <laughs> loolu cela veut dire loolu lan moo tax kii kii ñu koy wax ci rajo wala ko bind ay réseaux sociaux dëgg na loo xam ne vraiment nañ ko def bu ñu ko bu ñu ko delloo fu ñu doon nekkoon mu newoon mm-hmm. barke rasulillah la man de sama jabar laa la yàlla rajo rajo laay wax mm-hmm. man de may bu njëkk lu ma fukki junni laa ko may te mu ngi may seyal mu ngi may amal ay doom njëkk ak ter musul wulo musul xeer musul kii laa la macha allah eh? ay ki kii vraiment am loo xam ne juróom million yooyu am na feneen fu mu xaj mm-hmm. dëgg la loo xam ne dañ ci am tayaab tiyaab alaji asandaan dañoo kontaan si yow di la GRD ñaana yàlla di ñaana groupe Futurs Médias yëpp amiin yàlla fàttewul sama proposé Moussa Ba yàlla aako Moussa ko seytaan jërëjëf amiin amiin jërëjëf jërëjëf 88 628 14 14 asalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la siyaare ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Moussa di rafetlu liggéey bi di leen félicité waat. alhamdulilah ñaanal suñu waaj lii mu mbébét. Mhm. war koo inigiré. Mhm. yàlla na yegg ak jàmm. yaa rabbi. yàlla na yegg ak jàmm. amin jàmbaar la de réew boo ci hmm. am réew boo ci hmm. nekkee. Hmm. di doomu réew mi. am loo jëriñ ci réew mi te ñëpp xam ko. ku ci ne daf laa war a wax waaw góor. jëf rek jëf rek. ndax donte da ngaa jëf loo xamante ne benn nit a ngi yëngu. wala benn nit a daane doole di ci gis boppam. askanu Sénégal dañ la war a ñaanal nga gudd fan te wér. amin te li ngay yóotu yàlla defal la ko te wallahi da koy am ndax lan hmm. lu mu am réew mi la ko indi lu mu liggéey tibiti ci réew mi la ko def investir jërëjëf kon yàlla na ko yàlla defal amiin amiin yaa rabbi sëñ Moussa Fall di wax gis nga li nga tem nii mm-hmm. doom bu ne wala yaay ju waajur ju mm-hmm. wax na ci bàyyi xel mm. waaye Assane la amoon bu njëkk bu fekkoon waajur yi ñu ngi koy jëfee waajuru tey mm-hmm. ndax bu ne waajuru tey rek am na lu rax lu fi amul woon mooy lan sa doom boo koy maye daan nga xool kër ga nga koy tànnal fa nga koy tànnal ak fa mu war a dem ak fa mu war a jëmit nga yàpp ko fa ne soo demee man sa ndey sa baay xoolal fi li ma daj ci sa baay. Mhm. xoolal li ma daj ci kër gi. Mhm. ñaata at laa fi sëy waaye léegi yabatuñu loolu buñ lay yab sax dañ la naan bul dóor bul saaga. Mhm. américain laal indi boo yóbboo américain bu demee fekk fa boxeur rek <laughs> il faut ñu changer méthode yi. xanaa taasukat yi lañu war a njëkk génne ci sëy. waaw mais loolu moo <laughs> ki ki yow bañ na ko sax balaa ñu lay takk si sax bongomaan yi ñëw na. nama ma yàlla jéggal. <laughs> bon mais on a rien contre les bongoman c'est de grands ambianceurs. Hein. contre ko mais nag voilà. rajo <laughs> Sane contre ma loolu su ma koy wax. ay ay mais euh, plus important que cela c'est-à-dire que mutation yi la ñu réussirul xam nga adina moom munoo rek. na na na waay juri daan may démb barki démb loolu sax wax dëgg yàlla xel nagul ni fii ñu toll vingt vingt unième siècle bi. il faut que coppite am mais xam nga adina da nga ci dugg nga réussir duggin wi wala wala nga sànku <laughs> xaw ma nag xam nga fi may waxee. voilà on n'a pas réussi waaw changement yi dañ ko waajalul waa waaj voilà ah, ah. très bien foofu laa njëkk a ñëw sax xam nga ah. waaj gi mooy lan mm-hmm. Mm-hmm. waaj waaj gi njëkk ji mooy lan mm-hmm. yow da naan ñu ci bari dañ ne euh, àll ba néew doole ak nañ daan maye déedéet àll baa gën a cher gën a metti sax parce que ñoom lu ci bari dañ la koy indil ba yu bàyyi léeg yooyu yëpp daf ciy bokk ni waaye problème bi mooy lan éducation mooy base bi ki ngay maye nga éduqué ko di wax xamal ko ne man mii kat fii mu nekk ak fa mu jëm bokkul ak fa mu jóge sëy moom lañ ko war yab ko nag ci yabin ban ko war a yabe wax nañ ko léegi diine dafa ne na ndaw si toog ku góor ki toog mm. ñu yab leen wax leen lañ la war a wax waaye wax nga ko léegi rek fu ñuy daje salon ba la ñuy daje wala mm. waa ji ñu solloo ko benn jàllaa ko ca digg lal ba <laughs> ne ko bu fa xam ne bul toog bul dugg ca jàkka bul toog waa ci <laughs> toogul moom di cab mi ñam mi la nan la yëfam di ñeen di di toog <laughs> il faut que ñu amaat éducation bi hmm. amaat yar yi xoolaat jikko yi hmm. ni ko ni ko ni ko professeur waxee léegi ci koy ci yalla nako yalla la lafal ca merci beaucoup Moustapha Mbaye ñu koy gërëm bu baax diko sante sant Ablaye <laughs> Ablaye Diop a ngi xataraay ci bay vitré bi c'est vrai que suñu suñu cosaan léeg-léeg daf ci am yo xam ni il faut ñu daw ak mom ba feulé rek assalamu sànni wa <laughs> waaleykum assalam wa rahmatullah suñu <laughs> xaas Laaji yaa teg yaa teg loolu wala Ablaye Diop ko teg. xam nga ni man du man teg fi ma ne amul benn amul console amul table amul dara animateur bi xam nga boo amee réalisateur bu am dégg ah, waaye dafa ngéwalee day du génn foo xam ni gaa yi foog ne man maay DJ bi fekk du ma ci dara. <laughs> du ma ci dara de. Ablaye génn ci Omar Pène boobu de ah. ñu ngi lay def baax nag. jërëjëf waay. Euh, di nuyu sama benn doomu baay professeur Lamane Mbaye. ah professeur Lamane nit ku baax. waaw vraiment ñu ngi koy dokkee noonu vraiment mm-hmm. euh, lii muy. Euh, yàggul dara waxtaan nañ ci lu mel nii mais mm-hmm. alaaji mm-hmm. li olof yi wax rek ku wàcc sa ànd daal ànd boo dem fekk ca borom dëgg la ñun dañoo am lu ñu fi maam bàyyil am lu ñu fi waajur yi bàyyil mm-hmm. faaw ñu dellu siwaat suñu culture ak suñu cosaan ak suñu aada dëgg la am lu ñuy jomm am ngor am lañu ñu fi allo sëñ xaas dafa mel ni allo voilà ñu koy jéggalu rocceeku na mais euh, ba beneen dellu suñu cosaan du ñu tere ubbeeku ci àddina parce que aussi foo ñu bañ a fàtte les deux voilà àddina dafa nekk àddina wërngël képp koo xam ni faw nga ubbeeku ci xam-xam yu bees yi ci njariñ yu bees waaye baña a bañ a umpale sa bopp waaleykum asalaam. waaw kooku. maa ngi tudd Adama Dieng la rek Touba Mbacké. suñu aadama maa ngi ziar waay. sëñ xaas borom baat bi na xarit boobu maa ko puus mu génn. Eh, waaye déedéet waay xaas baat bi neex na de xaas jëloon na fi ay marché ci ci màggal gi sax marché yi jàng ay jàng xasida <laughs> comme yow dana invité saa ba ñëwee mu lay ko a gis. yee eh, Mbacke ñëpp laa koy wër kay du ko gis. maa ngi lay nuyu baax di leen jaare jërëjëf Diagne. jërëjëf ñaanal jàmm bu baax. amiin di ko yàlla ko yàlla boole ñu ñëpp di ko kàddu gi di kàddu gi jàmm waaye fekkee mboolem ku koy dégg. amiin rek laay am laa kii muy félicité président Youssou Ndour mm-hmm. wax dëgg yàlla nit ku nit ku baax la man ku ma doon wërloo ab patriote damay jël damay jël président Youssou Ndour rek ñëw ni la waajaa ngi kenn jiituwu ko ca. koo xamante fu mu hmm? fanaan Sénégal ak beneen. lu mu am indi ci réew mi laay la dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ko <laughs> amal. jërëjëf waay Adama ñu ngi koy ñu bu baax. merci beaucoup Diagne. par rapport ak système bi yow Alaaji da ko wax ba pare muy muy. Hmm, hmm. gis nga sëy cëslaay bi dëgg-dëgg mooy muñ mhm, mhm. moo xam mu jikko góor ki moo xam muy jikko jigéen ki mhm. ndax hélas néew na kuy nekk ak jabaram lu mat juróomi fan te deful loo xamante ni bu ngeen ko toppee tàqali ko mën na caa am wala wala wala nga def ko yow it bàyyi wala nga def ko damay bëgg toujours gars yi daal ñoo ñoo buuree rek góor yi Sénégal am nga am nga borom xam ah, yow tamit nga def erreur hmm? borom borom xam-xam dañuy jigéen da lay tooñ ba pare njëkk laa mer xam nga xam nga loolu nag su amee bu fekkee amoo esprit muñ bi nga war a am rek. Hmm. man man nga ko attaqué coow loo xamante ne loolu lépp mën na jàpp. dëgg la beneen bi am lu nit ñi bàyyi muy ndénkaane bu ñu bu bu njëkk bu nit bu nit jigéen daan sëy. Hmm. Hmm. ko ci penc mi ñu dénkaane ko. dénkaane googu ñu koy dénkaan nag dina ko ne ah na kër bu la sa waxee nangam na war a waxee nangam na nga nangam mu mel ni culture yi daal yooyu ñu daan def culture yi daal moom lañ bàyyi xam naa yow yow tamit bu la laajee dara ca mu ne ci poos bi nga bañ koo doxaanee ci ca jox ko <laughs> waaw kaasu xaas mbay nag moom dañuy say sa doom du ñu lekkee bu ñu añee du ñu reer nga ne ji mbedd mi sàmb àllaar tamit ah kaasu xaas mbay moom dañuy dañuy dañuy wér cinquante mille bu leen ah. seen jabar laajee ci junni ñu vraiment xam ah, nga problème la indi justement il faut relever tous <laughs> ces problèmes là <laughs> jërëjëf Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant gërëm ñëpp ñun àndaloon ci waxtaan wi Euh, félicité Youssou Ndour ni mu ko waxee ñaanal ko ñaanal ko euh, waxuma sax entreprise yi nga xam ne Ablaye euh, ñun benn gaa war nañ bokk ci ñu koy ñaanal <laughs> ndax fi la ñuy teddee waaye dul woon sax ay entreprise tour Sénégal ak fi mu ko yóbbu rek n'est-ce pas sur le plan diplomatique loolu lépp ay ngëneel la yoo xam ni war ku ku ku jara ñaanal la ku jara sàmm la ak ñi mel ni moom d'autres monuments culturels politique religieux Sénégal waaw dañuy am nag ay ay ñu baax ay star mais duñ leen sàmm duñ leen tiitaroo xawma lu ñu dal bërki dem rek am na ko dem Congo sama benn xarit bu jógee Congo mission lu mu mooy Sénégal nañ sant yàlla ci wax na dëgg nit ki nag doo xam li nga am lu may nga ñàkk ko euh, Sénégal nañu sant ca gën a taawu leneen nag ndax jàmm du doy euh, yokk ambition yi am lu gën lii gën a noppalu dépense yi euh, la vie chère yooyu yëpp war na wàññi ko waaye dinañu sant ba noppi. 9h22 sur la RFM ñu gërëm Ablaye Diop gërëm bu baax Mouhamed Ali Mouba moo réalisé émission bi ñu koy jaajëfal bu baax jaajëfal soxna Yacine ngir digital gi ñu yendu ak jàmm.